waaw aca tas yaakaar Paul Mat waaw songo nan Paul Mat Paul Mat fit fe lay bëre fulla fayda mais tas yaakaar mi mooy jogoda day mot da ngay dañoo neex mu ngi koy peese na ko ndeysaan ma ne man fu mu jàpp baax na yooyu dem weese ko Pod man daan na ko Pod man daan final Pod mii Pod mii nee na wax du ko daan